salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yu Hann TV bienvenue ci seen beneen numéro entre nous entre nous nag tey dafa ñëw fii ci Kër Massar fekk fi yeneen jeune ñu war a waxtaane beneen thème bu am solo sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Ndeya. di la bàyyi nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw man damay gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa école bi avant tout d'abord suñu directeur monsieur Ba. di di di damay il faut ma remercier parce que ñoom ñoo ñu may occasion ba lii mën a am. Mhm. aussi di remercier élèves yi nga xam ne xaar nañ ba mën a fekk émission bi quoi man pour l'instant loolu laay wax. d'accord euh, waa tey moom dañuy waxtaanee par exemple tey ci par exemple comportement élèves yi si école yi parce que léegi boo xoolee élèves yi jàngatuñu. Mhm. ñu ci bëri léegi heure bi ñuy jàng ci WhatsApp yi Facebook aussi seen comportement seen sol mais léegi da ngay xam ne gars yi dañuy jàng école pour gën a mën a dellu ginnaaw wala def comportement yoo xam ne daal man mënuma comprendre quoi. seen saag de maquillage yeeg ci. non saag kay salon moo ci nekk. waaw ay salon lañ yor est bi yoruñu saag salon ambulant lañuy lañuy indi lañ yor quoi boo xoolee ay seetu yeneen ak yeneen ñu ngi ci affaire yi man daal man mënuma mënuma comprendre quoi. léegi à qui la faute. non man déjà man ñi nga xamante ne yéen acteurs yi. non avant ñuy ñëw école d'abord kër ga la quoi. Mhm. éducation ci kër lay commencer avant muy egg école ñu dañuy ñëw rek mottali ki nga xam ne aussi mënuñu ko éduquer kër ga yaakaar naa mënoo ko éduquer école sama gis-gis quoi. mais tamit ñun ñu ngi def le tout pour jéem leen a changer jéem a changer yenn comportement. mais man léegi balaa ngay toog ci plateau bi. am na mm-hmm. ci benn élève bu la fréquenté ne la lu tax diwoo sa tànk xam nga bu njëkk professeur boo ko séenaan buy ñëw rek da daw mais léegi élève fréquenté nañ professeur balaa la diwal ak solal lii ak mais xam nga ñun léegi dañu dem ba presque dañu maase ak waaw tey man ñëw mooy nii école man samay dàll mu ngi ci suuf n'est-ce pas mm-hmm. mais dama ñëw nii def ko yëf yi bàyyi faal parce que fausse bi moo war a démarrer ci laa nekk di lijjanti nii yéeg wàcc yi moo tax moo sama tànk mel nii graawul dama ne maanaam ñeme bi leen élèves yi ñeme loolu may wax ji waaw léegi ñoo bokk génération xamuñu bokk teen ñooy laxasoo ay doj d'accord waaw noonu la demee joxal ma joxal ma sama xarit micro bi monsieur Malak <laughs> monsieur Malak monsieur Malak eh, eh, yi yéen a manqué poigne wala ba damay daal di nuyu encore di nuyu vraiment yi ñëpp ñu fi teew e-, ak équipe technique Sen TV bi yëpp di nuyu corps Sénégal ñëpp ñu ñu seetaan waaw question bi balaa euh, question bi naa ko tontu bu baax maanaam li nga wax ni am na lu ci lu ci am du ma ne ni manque de pédagogie lu amul la si si la bokk waaye dama jàpp nii tamit ginnaaw loolu secteur boo dem di nga ko fekk ay nit yi nga xam te ne vraiment ay nit xarañ lañ indi nit yu xam lu ñuy def la lañ parce que nit balaa ngi dem ci benn métier foog ñu tàggat la saytulawaat la bu baax balaa ngi ñëw jàkkalook nit ñi pour nga mën a wane li nga mënee waaw voilà côté boobu noonu mun naa ci ne mun naa ci d'accord parce que ni pour man pour ça daam nu ngay comporté wul daam na ngeen nar a taxawee kanam élève du question da nga ne professeur nga ma da nga nar a ñëw rek jàkkaarloo élève bi am na nooy doxalee sans pédagogie waaw parce que dafa li nga xam ne li ñuy jàngale la tamit waaw mhm. joxal ma sama xarit micro bi. yéen professeurs yi ñoo matadi wala yéen yéen yéen ci seen wàll bopp yéen woo bët. waaw avant tout maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp ñi fi toog ñëpp di nuy sama camarades yi ak suñu professeurs yi. Mhm. ak yow mi maa ngi la nuyu. Euh, pour pour jarul neexal bi bëgg rek ñu may la not <laughs> non si du si question boobu de mais mhm. man dama gis ne si élèves yi la. Mhm. parce que professeurs yi ñoom ñu ngi def le tout pour. Euh, kii nii gën a améliorer affaire yi mais ma dama gis ne si comportement élèves yi la parce que élèves yi ñoom ñoo dugg de trop professeurs yi et en plus tamit euh, seen kii nii nu ñu seen Pastef daal si njàng bi. joxuñu gëddaam waaw dafa des daal affaire yoonu man noonu laa ko gisee daal. lu ko waral à ton euh, lu ko waral mooy. Mhm. Ah, être que ci éducation bi la tamit parce que boo nekkee sa kër nga nekk sa parent. peut-être que ñoom mën nañ la éduquer ba xam ñu wax la ba xam pour nga jàng wala dara mais am na parents yoo xamante xooluñu ba xam seen doom yi li def wala dara leen di bàyyi noonu. di dem école waaw dañoo démissionné si affaire yi daal. bàyyi la ñu dem lu neex la ñuy lu neex waaye def si école yi daal man noonu laa ko gisee. d'accord tegal sa foofu sa ma dem fii côté bi te ñëwaat. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax. Euh, fu ñu wax élèves yoo élèves ak professeurs ñu bokk génération mooy jaxasoo am na fa. ça veut dire que kon relation amoureuse yi mi ngi ci biir école yi. <laughs> waaw d' abord permettre ma ma présenter wu euh, di man la monsieur Diop di nuyu tamit ñu fi nekk ñëpp di nuyu élèves yi depuis suba ba tey ñoom ñu ngi fi. Mhm. di la nuyu yow tamit di nuyu ñu fi toog ñëpp. waaw euh, jamono ji dañoo nekk période boo xamante ni la plupart euh, professeurs yi ñoom ak élève yi. même génération la mhm. quoi. mais tamit am na loo xamante ni teewul mënul ñàkk. classe classe la. Mm-hmm. tamit école école la bu jàng jotee dañuy toog def ko ba mu war. Mm-hmm. bu leneen jotee tamit muy toog parfois tamit pédagogique dafa am nekkul parfois da ngay ñëw rek toog concentré wu jàng wala njàngal genre wala yooyu noonu mais parfois élèves yi mun nga am tamit benn intimité moom mais du sori limite moom da ciy am à chaque fois. Diop dama bëgg nga dugg bu baax ci euh, débat bi. c'est-à-dire. Diop relation yi am na wala amul. ah bon pour man ça existe de man. waaw am na waaw mais tamit loolu lu war la wala warul. non loolu moom warul quoi franchement warul mais. ça dépend jël ci xale yi. non non mais da ngeen ciy jël quand même. <laughs> ça dépend daal ak ñi koy wala jëlal leen ci xale yi laaj nañ si waxtaan. <laughs> non loolu moom xam nga rek des fois xam nga relation yi dañuy xaritoo de telle sorte que élèves sax ñooy yaakaar nañ am lu ñu seex mais demewul noonu quand même waxuma la loolu de dama ne yéen a ngi jël ci booy wala jëloo leen ci jël comme man comprendre lu ma de j'ai pas bien compris yéen a ngi leen di doxaan wala doxaanoo leen non non non jëluñu booy quoi am nañu amuñu temps boobu ku mel ni ndayrama mii <laughs> wala tuddoo ndayrama abi abi abi abi ni nga jongomaa nii boo gisee abi kii kii suma rakk la rek élève la quoi classe moo ñu boole deux heures de temps rek abi loolu dëgg la wala du dëgg du dëgg kii day sóob kii kii kii neya kii sama noon la su may waxtaan day xuloo su may kaf mu mer kii moom bu ko déglu déglu yow laay déglu abi prof yi ñu ngi leen doxaan waa wala dégg waa kay ñoo ñuy doxaan bien sûr que ñoo ñuy doxaan léegi yow looy tontu ci doxaan ah fii moom élève bu fi ñàkk fayda ba professeur doxaan la nga nangu loolu tam yow la neex rek da ngay war a xam ne jàng moo la fii di nga def sa devoir jàng dem ñibbi ndeya ah, xam nga ne kii day sóob bu ko fi benn prof jëloon day day day nangu mais xam nga prof yi fi nekk ci école bi si amuñu temps loolu quoi fii def cours xam nga cours yi am qualité dem seen yoon deux heures temps moo ñu booleeg ñoom damaa bëgg nga génnee mbóoti parce que laay man li muy wax nii daal lu sama xel ndeya <laughs> xam nga wax dëgg yàlla moom loolu moom mënu cee ñàkk bañ a doxaan élève moom mënu cee ñàkk moom dañuy doxaan élève yi moom nice waaw kii day sóob kii xawul sa li muy teg. léegi yow professeur bu la ci doxaan nooy def. man professeur bu ma ci doxaanoon tey du ma nangu ndaxte damay xam ne jàng moo ma fi ay heure ma fi bàyyi damay jàng wàcc dem ñibbi suñu kër. kii li muy wax gëmu ko defee ko feneen. kii li muy wax gëmu ko sax mu gënal ma koy def si école bi loolu dafa salte. waaw léegi yow diggante boobu lan moo ko war a indi parce que bu fekkoon ne professeur bi dafa yem ci tableau yem ci ay ficham élève bi yem ci kayam est-ce que doxaanante dina fa am non non loolu du ci am wax dëgg yàlla loolu du ci am mais des fois si comportement élève yi la des fois tamit si comportement prof yi la élèves yi tam des fois ñoo leen di may kanam boo xamante ni ba professeurs yi dañuy am fit di leen doxaan man loolu laa gis. laay Ndeya xam ne kii li muy wax nii moom day wax. pour wax rek xaaral ma mu développé. <laughs> man de gëm naa jàngale jàngalekat bu njëkk. ba léegi mu ngi am. xam te am na ci seen école te mu ngi am. mu ngi am ba léegi. Mhm. c'est-à-dire possible bu bu jàngalekat nar am bu man ba léegi bu ko amee amul benn élève am sañ-sañ ñëw jàkkaarloo ak moom wax ko. c' est vrai c' est vrai que boo nekkee ndaw nekk jeune ñi jàngale dafa xaw a métti. mais ma Malak yow du yomb mës naa invité kenn koo xamante ne. moo si seen kuréel yooyu ngeen ngeen di yor. Mm. seen syndicat yooyu ci la bokk. Mm. bu ñu waxee euh, Human Rights Watch benn rapport bu ñu defoon. Mm. di wane ne euh, élèves yi professeurs yaa ngi leen di engrossé ci biir ci ci établissement yi. mais waa ji dafa bañ ne loolu benn wala ñaari kaala la bu fekkee ñaari kaala par anne loolu ndax lu war la. waaye loolu loolu man du ma ko weddi mais dama bëgg xam ne rek. gis nga métier boo dugg dafa fekk ñi nga xam ne dañoo ñàkk teggin seen liggéey. ñi gàmm ak ñi raas parce que am na lu ci jot am waaye waaye ko ni ñu ko waxee ak ni ko laam-laamee ci média pour man dañ ci yokk lu bëri sax. mais am na du ma ne amul. Mhm. mais dañ ci yokk lu bëri. parce que mhm. boo xoolee boo xool suñu diggante ak neexoo ñun bu baax te mun naa ne xëy na ñu ñoo laxasu ci ginnaaw média comme yéen ñi xam nga. Mhm. toog Euh, mbir yi nu mu demee ba ci biir de fond en comble. ah waaw parce que mën naa ne wàllu ngeen ci daal. Hmm. ak ak déjà le fait que état bi déjà mi ngi woon ak ak ak enseignement bi déjà respecté wu yeneen charte ci biir moo war ñu la xasu ci ginnaaw ngir jéem a sànni xeer enseignant ak yooyu mel noonu même pour man pédagogie bi léeg-léeg day dina am ni muy dal comme ñi nga xam te ñoo ngi soog a jóge ñoo ngi soog a commencé jóge tàmbale mënuñu liggéey bi pour man boo xamee li ngay rek mokkal ko. même bu yeneen yeneen tentation na la ci fekk yeneen nattu yi pour man da nga da nga am nooy doxalee ba ba ba am na koy féete léegi mu bañ dal sa kaw. yaa ngi défendre enseignant yi <laughs> jaxate jaxate euh, ñu toll si moment boo xamante ne comme ni ñu ko waxee professeurs yi ak élèves yi daanaka li ñu magante bëriwul ba nga xamante ne am na benn familiarité seen biir ndax loolu du indi frein ci diggante euh, maanaam pour élèves yi mën a évoluer ci côté étude. avant tout damay nuyoo nuyu suñu professeur yi ak sama xarit yi ma fi toogal di nuyu yow tamit maa ngi tudd soxna Aminata Diakhaté di jàngee école Almadies 2 bi nga ñëw tey loolu mënul ñàkk ci ci école parce que jamono ji professeurs yi ak ak élève yi du même génération bi li ñu magante ay cinq ans même am na ñoo sax du fa yegg mais tamit des fois prof dina doxaan élève ci waa ci côté positif wala ci beneen tamit dina ko doxaan ci côté négatif côté positif côté positif c'est-à-dire. côté positif mën na doxaan élève dem waxtaan ak ay parents am xamal ni ko daf ko bëgg ñu jàppale ko mu koy jàppale ci ay études am ba mu màgg ba tollu yenn niveau yi mu jël ko soxna. kon yow contre doxaan bi. non ci benn côté contre naa ko. Mhm. benn côté bi mooy am na prof yoo xam dañuy chantage élèves yi. Mhm. surtout ñuy def examen dañuy ñëw ne la kaay yor naa sujet sama kër affaire yooyu genre. soo ñëwee mën nañ abuser ci moom affaire yooyu noonu. kon professeur yi jubuñ daal. ah comme si comme ça rek. kalaasu Diop gi yéen def loolu. no man comme fi mu waxee rek foofu laay ñëwee quoi euh, comme ça dépend daal am na gis nañ professeur yoo xamante ni seen i soxna seen élève lañ kon yaakaar naa am na ñoo xamante ni maanaam. maa ci gis ay cas voilà kon kon maanaam loolu loolu mënul ñàkk comme lu monsieur Malag wax rek métier boo dem di nga si gis ay béréb gàllas am na ñoo xamante ni tey jii maanaam dañuy am manquement daal loolu si nit ki lay nekk si nit ki lay nekk mais dépendrewul si métier bi moo xamante ni tey jii moom la exercer mais tey ji loolu mun nañ ne yoon la du yoon ndax comme côté bi ma la expliqué léegi loolu c'est positif ndax nit moom nit rek nga mën a doon n'est-ce pas mën nga gis nit tamit bëgg ko bu doon sa élève nga jël ko def ko soxna loolu dara nekk lu bon mooy caaxaan man noonu laa ko gisee. d'accord mais àdduna ba jamono ji baax élève doo def yi ay greffage doo def lipo lèvre doo mag yeewu mais yéen léegi bu ngeen di ñëw classe da ngeen di mel ni ñuy dem soirée. non du loolu man loolu jaaxal na ma. génération bi la rek. ah d'accord kon génération 2002 bi la. <laughs> ñëwal xam nga li nga xam ne xam nga loolu loolu lu muy firnde. waaw xam nga lu gën a fës mooy dañu naan plus souvent élèves yi ñoom ñooy prof ñooy doxal élèves yi. Mhm. même loo xam ne na ko xam. élèves yi léegi sens inverse la ñooy doxaan professeur professeur yi léegi élèves ñooy doxaan professeur yi léegi. yow am nga ci ay cas am nañu am naa ci ay cas. élèves yoo xamante ne ñoo lay message guddi. élèves doxaan na ma ba tey mais fu ma fu ma newoon fa laa nekk rek. fu ma taw laa taxaw yow discipline ngay ngay ngay ngay enseigner. man anglais anglais lay lay lay enseigner. man profu langue ay anglais ay espagnol yi xale yi dañ leen bëgg daal. waaw xale yee leen bëgg man xaw ma mbir mi nu mu demee. non non man fu man anglais mooy mooy mooy mooy langue bi nga xamante ne dafa dafa bëri feeling daal. parce que anglais boo koy làkk sax foog nga xaw a nga xaw a. moo tax xale yi dañuy miir daal foog la voix soit flexible un peu xaw a dëngal baat et cetera xaw ci waane daal. Mhm. mais du question da mais langue moo ko laaj. langue bi moo laaj waane moo laaj moo laaj boo boo nekkee en plus. mu doon mhm. mu doon encore beneen problème bu ci teg nga doon célibataire amoo jabar mu doon leneen mais dama bëgg xam ne rek bu nga ñu xam ne rek su caag ne célibataire nga wala amagoo soxna mooy que ni ba ku ñëw rek dara sa kaw déedéet. waaw ah bu ñu amul fula yow amul fula de. waaw parce que jàngale fu mu newoon tamit mu ngi fi ba tey. dëgg la mu ngi fi ba tey. dëgg la pédagogie boobu ñuy laam laamee mu ngi fi c'est pas parce que tu es jeune rek mooy que munoo wala xamoo nooy doxalee. mais élève bu ñu la doxaanee xam nga mm-hmm. am na fu muy tàmbalee. Mm-hmm. waaw waaw. laaj numéro lay tàmbalee. yéen mm-hmm. professeurs yi lan moo tax élèves yi yor seen numéro mu mu yomb daal. yor numéro professeur dafa yomb déjà administration sax boo fa demee numéro professeur yëpp a ngi fi personnel yëpp seen numéro ñu ngi fa boo demee ci ay Facebook des fois plus souvent mun nga fa jëlee numéro. Mhm. comprendre nga WhatsApp tamit fois muy demee noonu élève maanaam moo bëri pexe bu la bëggee jot dina na jot waaye finition bi yow ci yow la si yow la si yow la des. sama gars yi ñooy naan dil yëpp yi nekk ci classe bi. <laughs> non même ko kalaateel. non woo xale bu jigéen bi ne ko naan naa la yow prof bi nii maa leen di gis. xamal <laughs> luñ dem wala ñu dem ci prof bi ne ko may ma not wala ma yoole la <laughs> non man moom wax dëgg fa yàlla néew yooyu moom d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog sama professeur rek sama grande sœur rek frère ñu fi toog mm-hmm. di nuyu tamit sama mbokki élèves yëpp ñun élèves man moom xaw ma ndax ñeneen mais man moom néew ma yooyu jàng moom fenn damay xëy weddiwuñ loolu dañ la ne li may wax yaa ngi koy dégg jox ma ñaar nopp yëpp bi ko dama ne <laughs> classe yéen xale yu góor yi mm-hmm. du ngeen nekk ci yooyu mais di lii fa nekk yëpp yéen a koy naan dëgg loolu du dëgg ah benn côté mun na nekk de. sama mbokk bul ko araftu laay. kii xelal xamul dara. benn côté xëy sama copain sama copain. waaw xam yooyu mais man moom xaw ma yooyu de néew ma si yooyu. d'accord comme élève nan la war a comporter woo pour ñu xam ràññee na kii élève la léegi xàmmeetoo élève ak étudiante étudiante. Euh, élève d'abord avant tout. Uh-huh. booy xëy balaa ngaa génn avant tout sa tenue complète war nga ko sol dëgg la man mi sol ma tenue complète lii. loolu laa bëggoon a ñëw foofu laa bëggoon a ñëw de. <laughs> waaw lii man mi sol mu tenue complète yéen it parfois da koy laaj tuwee bi nii yenn saa day ngande xam nga nii mais tenue complète boo ko solul dañ naan kii du élève xëy na dafa àbb blouse. te da ngeen koy bëgg a wàññi def ko peew. <laughs> non man duma sol peew gisoo. non weddiwuma dama ne da nga ne tenue bi dafa ngand. waaw mooy maanaam yow sa intention mooy nga jël tubéy bi def ko peew. noo duma ko def peew dama koy wàññi mais duma ko def peew certes école yi ñoom bu ñuy defar tenue duñ jël mesure. dañuy ñëw defal lu leen neex bu ñu paree. jox taay standard lay nekk waaw. Mhm. bu ko defee léegi yow. foo nga wàññi xoolal jaxate lim sol est-ce que kii day ñëw école xoolal xoolal lim sol. mais jaxate bu defee loolu responsabilité bi ci yéen ñii la. non mais xam nga tamit lépp administration lay commencé jaxate mii nii xam nga tey bu ma duggoon sama classe dama koy moy cinq wala ma moy ko dix. sëñ bi ma sama classe ñemewul duggee nii sama classe du ma ko sax jaxate looy wax di xam nga de day a kii moo may sosal de day ak kii moo may sosal. di ñëw suñu buntu kër chaque jour. jaxate yaa ngi may sosal eh, sama classe abi mii samedi laa ko mujjee dàq kii abi mii samedi laa ko dàq lii mooy 5 laa la def ak wala mooy 10. deuxième fois waa ngi nii ma fiy sol lii te ba ma fi ñëwee dafa gën a gàtt lii sax nga yooyu lañuy def ay boy town lañ tey da ngay ñëw nga naan ah jaxata li nga def baax na. ah kii da waa bëgg a dàqulu de eh. bët. ah dëgg neexu sa xam nga kii moom mooy sosal monsieur Mbala waxal. pour man problème daal source bi fu mu jógee mooy que fii mënuñu fi indexé administration bi xale balaa balaa muy àgg mu jógee déjà ci kër ga la jógee pour ma responsabilité bi nañu nañu ci parents yi jàppale. mais am na xale yoo xamante dañuy ah. jàdd seen kër voisine boo xamante ne aayalul lool ñu summee ko fa solo ñëw école. mais loolu bu amee tamit. kaa kaa kaa yi bëriñu. waa mais ah, administration war nañu mën a am responsabilité boo xamante ne. élèves yi boo ñëwee di dugg si. war nañu xool sa tenue même ga à partir de ci gardien bi ci boppam gardien école bi. Mhm. boo duggee am na yenn tenue yoo xamante ne. te élève li muy romb day bëri day romb gardien bi romb surveillant bi doog a ñëw classe loolu yëpp ngeen seetaan. waaw loolu loolu am loolu am la mais bàyyi ma delluwaat tuuti ci ginnaaw maanaam parents yi am nañ am nañ ci responsabilité parce que élève am na koy noo koy yore noo koy noo koy tàmmal. léegi sër sër sax dafa li nga xamante ne pour nit ñi lu araam la ñu gisoon ku sol sër léegi même boo boo boo judoon ci capital bi yaroo ci capital bi sa xoolale bëtu kaw ko ko la ñuy jàppee de mais pourtant su suñu valeur la takk sër nga takk ko ni mu waree jekk pourtant day jekk si jigéen mais loolu pour man éducation la éducation ba ci colin bi dafa am solo ñu ñu ñu tàmbal leen ñu xool nu ñu solo prospectivité am na ñoo xamante ne sax dàq naa fi ñaata yoon élève léegi da léegi soltuñu sa léegi déchiré genou léegi déchiré poche la ñu sol léegi léegi déchiré yi dañoo fi léegi weesu na léegi sa pooj si comment fii ci jeunes yi kon loolu cas bi mu ngi gën a grave di dem pour man carte d'identité élève mooy lan mooy mooy uniforme lii mooy carte d'identité élève am na fu muy toll am na fu muy toll ñaan ma ko yàlla sax ah natt mën na ko fekk ci yoon bi mais balaa ñu toog xam fu mu jógee ak fu mu dëkk mais blouse mooy mooy mooy firnde fi mu féetee fu mu fu mu bokk moo tax plus souvent ñu leen di ñu leen di ñaax pour ñu sol seen uniforme élève da nga nar a nangu sa condition élève ñun jaaroon nañu ñu on a tous été après di nga weesu fii nga doon leneen ak leneen. mais mais monsieur Malak nañ waxtaan. parce que abi mii ku ko gis. doo jàpp ne élève la abi xeesal na da ngay fobeere wala. niroo ki ras ndab day mel ni day fobeere yaram bi maanaam day day xeesal benn ñaareel ba abi dafa bënn bakkan bi loolu yëpp kon tamit ngeen seetaan ko. moom mooy lu mu la wax rek mooy lu mu la wax xam nga. abi mii dàq naa ko fi une semaine kii. ci école bi fii direction dàqul naa ko fi une semaine ndax bënn bakkan wala kii yi muy sol ni désiré yi samedi moo ci mujj samedi bi passé. abi wala laay daf laa def ay avance nga bañ. yow seigneur à chaque fois ma solee désiré yow yaay njëkk a apprécier ci buntu école bi ngay taxaw da may woo abi ba ma nee la naam ma ne la ba nga nee ma naam waa ndey xanaa abi nga nee ma man ba pare soogay dugg di ma boole direction. ñii gis nga bënn bakkan. ak sol bon taxul nga bon ndax heure jàng ba jotee maa ngi jàng samay devoir maa ngi ci am moyen macha allah kon boog lii taxul ma bon seen yow te moo solee yow man ma war laa cadré yow ma war di la apprécier woo fu la may fii nga yuuxu sama tur nee ma abi damay tiit sax sama fit bay dem ndaya kii daf may sosal li mu amul waaw léegi abi abi yow ëpp naa def nga sol lu gàtt désiré rek yow ëpp na ci yow <laughs> ngay sol lu gàtt ëpp naa def gàtt lu gàtt ma ko fi indi man wax dëgg yàlla bu ñu waxee dinaa sol ay déchiré loolu ma ko weddi ñaata yoon dàq ma fi ndax loolu mm-hmm. mais loolu taxul ma bon mm-hmm. loolu taxul ma bon xëy na man sama solin la wala sama look mais gis nga ñu baax ñoo ñu baax ba tey gis nga maa ngi koy indi école taxul ni bu bëggee jàng damay jàng sama devoir yaa ngi am ay moyens yu normal waaw waaw ma jaaxal yéen ñëpp a indexé senior mi non man kay man <laughs> ma jaaxal ba non non ma jaaxal monsieur Diop ñoom monsieur Camara dañoo war a wax ci lii parce que il doit prendre des mesures draconiennes sur ça parce que école bi dès le début mel ni ñun moom ñun ñoo ko mag mu def ñu ay raq ay ay mag sax la ñu def ñun ñun ñu koy conseil di ko def lépp su demee ba ci biir nag bëgg a rectifier bëgg a nekk suñu mag dafay metti da ngay ñëw sol lu gàtt ñëw mun la ii jaxate jaxate macha allah jaxate. astafurlah xoolal astafurlah eh, eh, eh, mais Ndeya xoolal dangay def loolu mu naan la i jaxate macha allah tey lii nii nii su duggee nag classe ne fi tàng-tàng te su wéetee ci ruq jaxat tey guddi fan la jaxat tey lii fii lan la yooyu lay def sañoor noonu la mel de nature kii rek sama liste de départ bi laa nekk est-ce que yéen tam am ngeen caractère parce que élève tamit am na noo xamante ne boo ko comporté woo professeur pour man day rus ba du la ñemee wax yéen nii non ñoom ci boobam ñoom ci boobam ñoom ñoom ñoo ñuy ñoo ñuy charmer boo yi nii man maay daw sax man man maay daw quoi man maay daw ba ñu seex ak ñoom. ñu ne moo lay charmer booy nii. sëñor ñuul nga ñaaw nga ku lay charmer tamit sëñor kenn du ko charmer c'est tamit benn instant. Eh, ñuul na mais ñaaw sëñor kay dafa ñaaw. <laughs> tegal foofu sa baaraam ñu dem service commercial observer benn page de publicité dellusiwaat gën a yaatal waxtaan